mais bëggoon naa ñu seetaan benn extrait benn ziar boo xam ne rek Hizbut Tarqiyyah amaloon na ko ci euh, ci euh, Cheikh Sidil Mukhtar Mbacké bu fekkee élément bi yemb na mën nañ koo seetaan te dellu siwaat ma ñëw ci sëñ Ibrahima Keita ak euh, si Mout Thiam laata ñuy tëj waxtaan bi is bu isbu tarxiya ci mbooleem bànqaas yi moo am ci biir réew mi ak ci bitim réew amaloon na ab siyaar bu mag ci ki fi toogal Serigne Touba tey di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér mu amoon bisub gaawu juróom-benni fan ci weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci ati gàddaay gi dëppook 31 décembre 2011. siyaare nag ku nekk xam na ni bokk na ci li ab murit di firndeele cofeelam ci sëriñam di li muy yeesalee pas-pasam di lim koy sàkkoo liggéeyal di li muy sàkkoo barke ak mucc te loolu lépp ñu wax ak yeneen yu am njariñ seexul xaddiim dër na ko mboolem ko jóg jëm si ci moom di ko siyaare wala nga di ko liggéeyal bokk na ci yooyu lu siiw muy tàqalikook bàkkaarub tey ak ëllëg gi nga xam ni warloon na ko waa sarsaara ak képp koo xam ne jóg nga ngir jëmmam inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw saara moom moomu seexul xadim moo dellu waxaat ne fa kullu man xadamani aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara wa kullu man ahabani aw maala ilayya farzuqu dan aw maala waxaat ba tey wajhu lazi yuxibu nii yabyaddu yowma wujuhu shuhada tabyaddu ba ci waqti hawaaiji lazina daamu fii xidmati wahub lahum maaraamu añikub siyaaru ren bi mënees na ko gisee ci dikkin wi waaye itam ci lu am solo ndax bi ñu agsee ci jumaa ji mag ji mbooloo mépp dañoo wàcc woto yi dox ak seeni tànk wër jumaa ji barkeeloo ko siyaare loolu lépp amee woon ci njàngum xasida moo xam ne dogul senn saa ci mboolem kuréel yi bàyyi ko ci daara Hizbut Tarqiyyah yépp ñun sunu jaayante rek la ñuy yeesal moo tax ne ko mag ñi daan defe xool nañu xool defin defin bu ko gën jafe na nu nu nu nu te nu te jaar ci seeni tànk ak fas yéene li nga xam ne jamono may nañu ko ci ay jumtuwaay ak i ak i xam-xam ak i xalaat ñu boole ko ci rek waaye xamal ne joxe suñu bopp rek ñu xam ne keneen yilifu nu ko dul moom rek moom rek ñu bëgg. ànd ak njàngum xasaayit mi mbégte mi maase ci ñépp koo gis tey xar kanamam mën cee yëg mbégte mu wér ak fu mën a jóge muy membre wala muy gan. ba ni Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides accès ànd ak Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ci noonu jëwriñu daara isbu tarxi di Serigne Atou Diagne moo leen teeru siyaare ànd ak ñoom ñu jëm si ci mbooloo mi bi sëriñ bi agsee ci la jëwriñu daara isbu tarxi jël kàddu gi jottali siyaaru mbooloo mi fàttali fan la jëf ji ñuy def tege ak lan mooy jublu gi tey jii nii Hizbut Tarqiyyah dikkee ci kanamu kii fi toogal Serigne Touba tey. ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la sant di la gërëm eh, nii nu ko jotoon na waxe rek bi nga xamante ne noo ngi woote siyaare bii waxoon nañ ni ab murit bu jóg di dem siyaare ji sëriñam rawatina sunu xeet bii li ëpp ci nit ñi day naan. ay daanukat rekk lañu ñu ngay dem ca sëriñ ba sunu yàlla mayee nga nekk fi tey di takk ndeeram yor caabi buntu këram war na noo ñëw ba nga xam ni bokkunu ca ña doon di diital danoo ñëw jaayante si ñëw ba nga gis ni xam ne joxe nañ sunu bopp joxe sunu bopp gi ñu dëggal ko ci sunu alal ak sunu jëm loolu moo nu indi nga xam ne ay murit lanu yaakaar seexul xaddim ku ñu ne moo ko fi nekkal rek xamal ne yaa yor sunu buum yow na buum gi sunu baat jox nañ la nee na kon sëñ aatu yow mi nga xam ni yaag bokki taalibe yi ngeen àndal yéen a wajaral jataay bii tey eh, sëriñ bi mi ngi gën a yeesal ak cantam diggam ak sëriñ bi ndax xam na ni sëriñ bi rek leen tax a jóg sëriñ bi rek moo leen tax a jóg moo waral seen bis bii tey moo waral seen bis bii tey bi muy defal sëriñ bi itam. liggéey bii muy defal sëriñ bi itam. xam ne moom boole ak cant boole ak cant nga xam ni moom la boole ak cant gi. Euh, seeral na seen taxawaay bi nga xamee ne euh, euh, taxaw ngeen ko ci. nee na seeral na seen taxawaay bi nga xam ni taxaw ngeen ko ci biir liggéey boobu le xam naa ne waxtu wu nekk. xam naa ni waxtu wu nekk. jekk ngeen ci gën a jox seen sëriñ Touba seen bopp. jekk ngeen ci gën a jox sëriñ Touba seen bopp. jekk ngeen ci it gën a dëgër ci fas yéene taxaw liggéeyal sëriñ Touba. jekk ngeen ci itam gën a fas yéene dëgëral ci taxawal liggéey sëriñ Touba. loolu sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax. nee na sëriñ bi Cheikh Mamadou Taxa ne mi ngi jégalu bu baax. lu ma ci wax rek yàlla ko gën a xam. nee na lu mu ciy wax rek yaa ko gën a xam. bokki taalibe lañ yoo xam ne. waaye nag bokki taalibe lañ yoo xam ne. dañoo aajoo ndimbal. dañoo aajo woon ndimbal. te am nañ yàqin bu wér ne. te am nañ yàqin bu wér li mën nga leen a dimbali ci li ñu wut. mën nga leen a ci li ñuy wut. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal sëriñ Touba. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal Serigne Touba. kon koo ci bëgg dimbali rek mën nga koo dimbali. kon nag koo ci a dimbali rek mën nga koo dimbali. maa ngi leen di yalwaanal dimbal bu baax a nee na mi ngi leen di yalwaanal bu baax a baax a baax. ndimbalul biir ak ndimbalul biti. gën mën a jox Serigne seen bopp. ñu gën a mën a jox Serigne Touba seen bopp. gën a gën a gën a gën a fas yéenee gën a lëggéeyal Serigne Touba. gën a fas yéenee lëggéeyal Serigne Touba. boo leen ko nangulee rek. boo leen ko nangulee rek. ñu xam ni Serigne Touba nangu na leen ko